Cerchi un biglietto aereo? Scegli la libertà di viaggiare come vuoi tu. Prendi il volo offre un servizio speciale per Dakar. Voli Neus, con partenze da Malpensa, Bergamo, Roma e Verona. Puoi scegliere le date che preferisci, decidere il numero dei bagagli e puoi pagare anche a rate. Inoltre possiamo offrirti anche altre compagnie aeree come Air Senegal, TAP Air Portugal, Royal Air Maroc e tante altre. Per info e preventivi chiama il numero 329 98 000 anche via WhatsApp. Comprendi il volo puoi acquistare il tuo biglietto aereo in modo facile e veloce per un viaggio sicuro e conveniente. Prendi il volo, scegli la libertà di viaggiare come vuoi tu. waaw ngay sama jigéen bi laa jël si fii yaasin noonu yaasin na naka mu ñu ngi fi ñu ngi si jaamu yow jàngama nga tey nag macha allah ni ak foo jëm xanaa rek dem euh, sargal suñu consul général son excellence ci mhm. liggéey bu rafet bi nga xamné def na ko ci Italie mhm. ñu doon ñaan yalla nak mu continuer wax deug fa neex yalla mhm. waye ku ne xamné né gouvernement mo mel nonu ñi ñew il faut ñu changer indi bu bees waye liggéey na fi lo xamné ne waroon tax ñu bàyyiwaat ko fi ndax néna Italie yeb dañu won def pétition pour ñu bàyyi ko mu continuer ndax fi muy miinee fi muy amee expérience ci foofu lañ ko déjjatee waye liggéey na fi lu rafet lo xamné ne gëm naa ne kii ñëw xamaguñu ni mi démé dé waye gëm naa ne ku mel ni mom ah duñ ne nag du am waaye dina jafe loolu lépp dina leer tubarkalla incha bi nga leen defaree waaw ko ni mu jong ma macha allah dégg muy tooj <laughs> ah defar nu mu tudd ak ah, kooku nag mooy Maya Sy tubarkalla macha allah mhm. coiffeuse bu mag bi 2000 mhm. la ñu xamante woon ba 2024 def naa 24 ans la mhm. mu yar ñu suñu mariage moo ñu defal ci Sénégal ñu fekkat ko fii ci Italie muy def lu rafet macha allah bu tudd lan Mbayang Mbayang Sy Mbayang Sy astu si mhm. astu salon bi laa bëgg nga wax ma fan la nekk nga jox ma adresse bi parce que jigéen ñi ne fii jeeg ji dañoo war a ñëw fii set si la fii ci Bergamo ak li wër Bergamo ba Milan ngeen ñëw fekk leen waaw kay wax jox ma adresse bi salon bi mi ngi nekk ber euh, ci Via Corenghi euh, Via Corenghi numéro cinquante ci salon Silvia numéro cinquante cinq cinquante ci en ah, cinquante c cinquante ci waaw kay mi ngi nii kii moom day nangu di ñu suivre boo xal Mbaye TV waaye doo rëcc xanaa wax day jeex jàng ndaanaan mu ngi ne toog moom tamit ñëw ànd ak ah kon TV moo ngi ñoo ñëw toog ak seen staff ñu war a dem seeti leen yéen ñëpp bu ngeen bëggee nag gis nga yow Yacine. yi dañoo war a ñëw fii. fii ñu la defarale ñu defaral leen comme bu ñu amee ngente tàkkat ñun les jàmbaar d'Italie et de la ah. diaspora. waaw ñu ñëw fii la ñuy solo dégg ma la 2000 ba 2024 la. comme loolu bay jeex rendez-vous bi Milan la ñu dem sargal ki nga xam mooy son excellence. le consul euh, général Lamine Diouf. Lamine liggéey ci Italie liggéey italien yi ñu war a woon adduna que ne waa ji kat liggéeyal nañu defal nañu lu mësta am dans l'histoire waaw man xam ngeen man euh, roqee ba maa ko xeexoon ba mu jóge fi Lamine mako ko bam tok ndax dafa liguel Sénégal yi daf ko ñi ngi tam nak rejoindre ko won leen li nga xamné moy sargal bi and ak suñu jigen bi di yassine barkalla jaxna ba ci kanam wala ca Milan inshallah Assalamualaikum asalaamaaleykum Sénégal sénégalais fu ngeen tollu ci aduna tay Khadim TV ak ndalan TV ensemble ñëw daje fi di sargal ben gor ko xamné si euh, at yi mu nek fi yépp ci Italie

Lamine bo demee ca consulat be do consul bi wala dette da nga ak mom sax ci couloir yi ah, rendez-vous ne rien De recevoir directement nak tay ji yalla def mission jeex fi gu gi ñëw ñu soulever ko voilà ah, ñom nak am nañ sañ-sañ bi def voilà mais manifester leen manifester sénégalais manifester nguur gu bees gi tamit que ne waa ji ñu fi jëleel kat mënoon nañu ko fee bàyyil parce que njariñ donc kuy dox ci lu baax ci sénégalais yi dafa naa ne kooku waroo xool sax parti bu ko fa teg ak kenn koo xam ne si créé nga ko pour mu ñëw fii ci Italie Lamine nag Sénégalais yi dañ koo sant te li ngeen di dégg fii tey li ngeen di gis fii dañ leen firndeel li ma leen wax voilà amul benn consul ci àdduna bu mës a am li nga xam ne si am na ko moom tey jii Sénégalais yëpp daje ñu jóge fu nekk ci Italie waaw ba ci ñi nekk Pastef ñu ngi fii am na ci ñoo xam ne si ñëw nañ seede li nga xam ne si mooy liggéey boo xam ne mooy liggéey bu rafet ay idées yu bare lamin da ko indi

kii ngeen di gis moom la tey ngeen gis ko nguur gi bàyyi leen xel ci Lamine Diouf mi jërë ngeen jëf ba ci kanam gis ngeen salle bi ni mu feese ñii ñëpp ñëw di ko seddal lamin ñu laaj ay quelques nit soxna si nanga def. maa ngi sant bu baax. waaw kii Ndaanaan TV la ak Khadim Gueye TV Lamine Diouf mooy kan bu mu ne woon Lamine Diouf. lamin Diouf mooy consul son excellence nekk nit ku baax nit ku nit koo xamante ni tubarkaala macha allah ku social la ku mën dimbali nit la te yàlla rek tax dem bii muy dem nag ah ñun day suñu xol sedd na ci moom kontaan nañ ci moom wax dëgg yàlla salle bii ku ko xool xam ni sénégalais de l'extérieur yi kenn jëppiw ko te nekkul loo xamante ni sax dañ koo wàcc ay weer wala ay ay mois wala ay kii ci diir bu gàtt waaye ñëpp kontaan ci moom vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér vraiment ñun loolu rek lañ koy ñaanal parce que tey xol yi potooy ndax nit ku baax a nekk nii lamit Diouf nit ku baax la soo nekk excellence nit ku baax la yàlla na ko yàlla defal jàmm man de wax dëgg yàlla sant naa ko gërëm naa ko te du man kese àddina ñëpp a ko gërëm sénégalais yi fi nekk association yi fi taxaw ñëpp ko gërëm ñi muy liggéeyandool ñoom madame ma kenn jëppiw ko

Cheikh Nour Cheikh Omar mu ngi lay wax moo ñu fi yónni ne ñëw sant la gërëm la ci sa taxawaay ci këru diine yi yaakaar naa ku fi teew tey xam na ne ni nga sol sonnee ci këru diine yi waaw du guddi chaque samedi chaque dimanche amatoo amatoo amatoo programme di nga def 3 4 programme ci guddi gi loolu nag yëg Sénégalais yi la fonk sénégale yi la lépp lu ñu am ci programme nga demal leen teewal leen fekkal leen foofu ren de nag ah, ak yeneen activités yi nga xam ne yaa koy def projet bi nga xam ne moo gën a rëy ci ren de Cheikh Omar mooy xalwaar jéem a dundalaat xalwaar sa loxo génn ci fexe nga ba état Sénégal def ci li nga xam ne mooy participation loolu nag il fallait ñu teew fii teewal ko xamal ko tamit mboolem jullit di li nga taxaw li nga def yaa ngi dimbal sénégalais ci kayit yi yaa ngi dimbal sénégalais ci dëkkuwaay yi waaye lii tamit dañ koy seedeel yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla fay na yàlla taxaw mu gën fi fi nga jógee bu doon suñu sago dañu dee doo def waaye nag liggéey nag moom loo gis a xam après waaye ñu ngi lay sant di gërëm lii moom lii wane rek li fi teew jëlu sax bon même même nit ñi bu ñu waxul rek lii wane rek am na yow sa liggéey am na fu mu egg ñu ngi lay sant di gërëm malgré nga nekk sama Macuro nag sama jaam nga su ma la wooyee maa ngi yow kal su ma ko wooyee daf may wax kan sa eh Macuro maa ko non man maay sa buur donc yooyu yëpp simplicité am la

diaspora dafa mës nekk état naam jaam nga ci man may sa buur gannaaw ba ñu taafantale ci ci tooñ tooñante bi waaye ma ñëw fii ànd ak délégation wu ku ne xam ni sa diggante ak structure boobu muy ndey di seex ñu wékk ma casquette par le biais de la présidente

Les sue ultimo gocce ricadono sempre in mezzo alle cosce. kon la dafay bokk ci Analu, diplomatie wu Sénégal pour la première fois ay doomu aadama toog di delloo njukkal ab Baay Faal bu len gadul drapeau bële nga xam c'est le vert et le jaune et le rouge symbolisé par l'étoile à cinq branches qui signifie l'ouverture des cinq continents dañuy ñaan yàlla xam ka lay wut ak kay ñëw waaye tu am emboîté le te dañ koy digalit da topp ci tànk yi nga teg ndax ñu diaspora li taxaw ci diaspora rek la ñu xam di remercier nag l'ensemble de ton personnel au consulat ndax ku ñëw ci bunt bi li ngay njëkk seen mooy seeni bëñ yu weex gàttandu la tatagal la taxaw si saw yitte ndax ab moodu moodu wala faatu faatu ab këyit waru koo tardeel te yow ci loolu nga xëy ci loolu ngay yokk yàgg sa équipe au niveau du continent kon ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla yàlla aar yiir la yiir njaboot te nga dellu ñaanal ñu ñu nit di waa diaspora yàlla aar ñu yiir ñu yiir tamit njaboot gi ba def ci njaboot gi meññettam boo xamante ni ñun ëllëg bu ñu ñibbee dinañu xam ne lege nañu benn héritage bu positif ci troisième génération bi nga xamante ni ñoo fi juddoo kon nag excellence du ma guddal maa ngi lay wax marxaban di la wax yoonu jàmm di la wax ne en tout cas tu resteras gravé dans nos mémoires parce que yaa ko ji ndax tool bi yaa ko yaa yaa ko ji des na nag ñu war a jël meññet yi te defe naa sa successeur bu ñëwee danañu ànd ak moom góobandoo ko pour que meññet bi daal di dal ci Sénégal jërë ngeen jëf wasalaam wa sallallahu wa sallam ala habibina Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax nuyu bi gën a sakkan nuyu muy asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi gannaaw bi ñu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw teew fii ci mbooloo mi nga xam ne mbooloo mu tedd mi mbooloo mi nga xam ne li ko sabab mooy jaamu yàlla boo xamee ne jaamu na yàlla ci kaw jaam yi te yàlla kat danay teral jaam bi ba mu teralee jaamam yi ndax yàlla jaamam yi rek la fonk rawatina doomu aadama yi wala xat karam naa bani aadam kon loolu moom mu jël aaya boobu di ci liggéey di ci jaamoo yàlla di am ci nit ñi yàlla nit ñi di am ci moom di am yàlla kon yàlla moom mu doon defal du fi jóge ko ñun ñoo fi bàyyeekoo ko waaye yàllaa ngi des waaye jëf yi dafay des ndax man amila saalihan fali nafsihi ku def lu baax rek yàlla fayda ko yàlla fay gi nag du tay tey suba mom Hadji Lamine Diouf bu xoolee bëtam gis jaamu yàlla yi toog fii yëpp te xamut fu ñu bàyyi ko lu leen indi ñëpp jëmmam ji tax kon moom li ko war rek fi commencé woon muy bismillahi rahmaani rahim na jeexalee ci alhamdulilahi rabbil alamin kon Hadji Lamine na nga wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax la in zakartum la azidannakum boo sante yàlla rek yàlla dolli la te yàlla et xam naa li ñu bëggoon wax sax ci moom li nga xam ne ñun moom lañ seqat man Abdou Salam Kébé ñu teewal fii diaspora Ajmaka diaspora ci sama collègue bi may àndal muy alxaaji Xaadim jaar mu nekk tey ca Touba. ñu taxawaay fii ma taxaw ñaari jëmm taxawaayu Abdou Salam ak taxawaayu Xaadim waaye taxaw ko ci kanam doomu aadama yi nga xamee ne ñoom lañ seqal ñu jële leen fii di leen yóbbu Màkka te muy diaspora bi du Italie rek. ndax ñun fu nekk ci àdduna bi ku nekk ci diaspora bi rek am nañu quota boo xamee ne gouvernement Sénégal moo ko jox diaspora bi moo tax mënuñu ànd ak ku dul sénégalais. waaye loolu ñuy dox ci at yu bëree bëree bari waaye moom bi mu ñëwee dafa ko dëggalee ay yoo xamee ne wax digg yàlla suñu ko waxul ci kanam mbooloo mi dana nekk loo xam ne du ñu ay gor ndax Lamine Diouf. Xaaji Lamin Juuf li tax ma koy Xaaji Lamin Juuf dem na Màkka parce que ñoo ànd ak moom Màkka wër Kaaba gi kon mën na buñ ne ko xaaji du du du du la xarwa du loo xam ne lu mën a lu ñu mën a kii kon wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamina kon Lamin bi nga xamee ne diaspora bi añ Màkka bu jotee ci moom laay wax parce que ñi passé def nañ lu baax waaye moom bi mu ñëwee daf ko yokk. fi mu nekk nii suñu ubbee aj gi lim ñu njëkk wax mooy ne képp koo xam ne dafa war a dem Màkka te passeport am jeex na ñëw ñu defaral ko ko ci saa si mu mën a ànd ak yéen loolu ñu fi nekkoon dañ ko doon def moom mu ñëw gën ko dëggal bi mu ko dëggalee mu boole ci loo xamee ne man maa ngi ko doog a gis Lamine de boppam jëlal boppam passeport yi di ko gardeel boppam ku ñëw mu taxaw ci bunt bi da war a dem màkk naa nga mu jël passeport bi denc collègue passeport yi ba mu nekk 200 passeport loo xam ne def ko rek pour jaamu yàlla yi kontaan jaamu yàlla yi bëgg ci li muy liggéey ndax kuy liggéeyal yàlla kuy liggéeyal yàlla doo am frontière ndax kat ku def lu baax yàlla fay la lu baax ku def lu bon tamit nag yaa xam la da cee fekk waaye ku def lu baax ñu wax ko kuñ xamal leneen li noppi kon xaaji Lamin li tax ma wax loolu ren ji dafa def loo xamee ne il faut mu wax ko mbooloo mi xam ko Lamin def nañu dafa xaaji dafa nekk Dakar di nekk ci mission ba di toppatoo ma nekk fii Europe pour mën a régler passeport yi mu ne ma Abdou Salam bu leen am problème passeport yëpp danaa ko dajale ci sama loxo ñëw ñu compté ko man ak yow ñu defar yëpp verbal yi loolu mu nekk ci guddi ak bëccëg mu diire un mois yoo xamee ne chaque jour mu def ko bi mu demee ba war a jeex ma ñëw bureau mu ooma mu ne ma dimanche dañu am férié du ñu liggéey mais mu jël secrétaire mu ñu moom ci bureau ñu defar passeport yi retire ko yëpp ba mu jeex ñu classé ko ba mu jeex mais yemul foofu de mënoon nañu ko jéem ba dem yoonam mais bi mu paree dafa ma ne li xaadim di jógee ko dakaar di ko jël si man bàyyi ma yóbbu ko mu gàddu ko yóbbu ko dakaar ñu defar visa yi mu ñëw kon loolu nga xam ne dara tax mu def ko du suñ jëmm yi mais jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi jaamu ji yàlla di dem mu mukarama di ziyaare ji mu yombalal leen ko wax dëgg yàlla bu defee loolu dinañ wax ne mbooloo mi e ki fi ñëw de xaw ma kan la waaye day li Lamine Diouf def ci lu baax yal na yàlla xiir ko mu gën ko yokk ni nit ñi gërëmee Lamine Diouf yàlla xiir ko bañ gën nga gërëm lu toll noonu waaye moom am na mérite am na ngërmande borom bi tabaraka wa taala ndax ku am ku am ngërmande nit ñi man lam yaskuri naasa laa yaskuri llaaha ku dul sant nit ñi doo sant yàlla te kon nag ay nit lañu ay jëmm lañu te ñu seq ak moom loo xamee ne diaspora bi yëpp d'accord nañ ci ne mu ngi dimbale jaamu yàlla yi ci waxtu woowu nit ku nekk nag lam am rek la mën a maye moom consulat bi lañ ko dégg mu mënoon a taxaw fay na su ma yoon nekku ci waaye lépp daf ko jël amee taxawuñu ba nga xam ne ñun amuñ sax lu ñu war a mën a def ah. kon wax ji denn du dara lu dul gërëm ko ñaanal ko borom bi tabaraka wa taala yàlla mooy fay jaam bi yàlla ko yàlla fay mm-hmm. yàlla mooy suturaal jaam bi yàlla ko yàlla suturaal yàlla mooy aar jaam bi yàlla ko yàlla aar moom ak soxnaam ak jabar ak ay doomam ñëpp ndax loolu bu ci yemoon daf ñu jël yóbbu ñu këram bu ñu àggee soxna si futteeku ci ñun lépp lu mu mën def ko ñu fanaan këram di toppatoo li ñu toog ba mu jeex te dara dara dara duñ ci am benn problème ci kanam soxnaan su baax su tedd si kon dinañ ko gërëm moom tamit gërëm borom këram gërëm mboolem jullit yi kon Lamine jërëjëf yàlla yàlla fay la jërëjëf yàlla yàlla fay la wasalaamaaleykum wa mbooloo bi

benen bi dama fi nek en tant que président de l'ACSI l'association culturelle des Sénégalais d'Italie bu Treviso et enfin benen bi dama fi taxaw en tant que ami Comme naa boobu nag laay njëkkee dafa am ben adage bu wax que derrière un grand homme il y a une très grande dame li ñuy wax yépp ci Lamine Diouf su fekkente ni dafa am luko luko lu ko lu ko lu ko yombal parce qu'il y a une très grande dame qui fait un travail extraordinaire à la maison. Je vous nommer Madame Yacine. J'en connais quelque chose parce que Mon résidence mon résidence bu PSB, bi un naa fa moom na sama kër à Yaraax man fanaan à c'est pour vous dire en tout cas la relation yi ñu avec moi. je connais toute sa famille il connaît toute ma famille ces enfants de nouveaux euh, Amadou so là ñom ñep dinañ jaar sama tour li am ni tay ñun am nañu chance euh, faire Abdou Soura am nañu chance de Rokhay avons am chance ko nu mais je ne crois pas que départ bu mel ce am ñu ci sant yàlla nag ñun waa télévision, parce que bu ñaawoon xam naa dinañ am gàcc ñun waa Treviso parce que moom il est de Treviso su liggéey bi rafetee c'est vrai que dafay rafet ci moom mais ñun tey dañu am benn euh, fierté de de de benn sentiment de satisfaction ñun en tant que membre de télévision, parce que jàpp nañu que ni kenn si ñun moo accomplir mission ba ay ñom ñom koy rendre hommage et loolu vraiment lo xamanteni au nom de de Treviso ñi ngi gëreum ñëpp ñi nga xamanteni ñom ñoo ñom ñoo organiser cérémonie bi yalla dafa def euh waaw xamna dinañ gatchal mais tay bis bi dafa nekk bis bu rëy ci ñun dañ ñuy baal rek suñu suñu xaabaabale nga comprendre lu tax ñu bëgg a xaabaabal c'est pas que dañu bëgg a yàq protocole bi mais il faut nga comprendre un peu. waaw mais xam nga nit ñi aussi dañu waroon teel a ñëw bu ñu teel a ñëw peut-être dinañ def liggéey bi yëpp quoi nga baal na. yàlla dafa def ren ñu organiser woon màggal Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké à Brescia en réunion j'ai pris que ni moom dina ñëw ci cérémonie bi sans ma avait dit aviser ko sax bi génne ci réunion bi ma woo ko mu ne ma ah dina xadde ma ne ko mais il faut nga ñëw.

donc nañ ko nañ que ni mu parce que Cheikh Lamine en tout cas guddal mais li ñu bëggoon euh, ñu ñaanal ko parce que aussi li wax doomu ñay moom da koy ñaanal mu mu mu parce que nous na ba pare ñu ñaanal ko fi mu jëm mu dàq fi nga xamante ni foofu la liggéey nga ses collaborateurs parce que fondamentalement loolu aussi lu am solo ñun fekk nañ fi comme ni ma ko waxee souvent fekk nañ fi roxee nañ ñëw consulat ba xam ni nit ñi daan taxawee par rapport ak sénégalais sénégalais de l'extérieur mais à si si magistère ku ñëw ci consulat bi di nga xam ni vraiment collaboration am na entre sénégalais de l'extérieur ak le consulat donc jërëjëf merci beaucoup. jiital ci nuyoo gi Mamadou Lamine Diouf consul di wax alhamdulilahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ندخ يلا دفنا تخاوي جيما في تخاو تيجي خدنا دما في تخاو الفم جم بوب واي ايتام دا فا ام ستركتور بوما بوك بريزيدان بي ديمون ماغالي توبا فيس بريزيدان بي nu ne ma soo demee nan fa taxawal structure bi ndax ci sage structure bi nga bok muy le cadès président Massaer Diané mu ngi lay nuyu doyen Simal ñu lay nuyu nee nañu su no su doon seen sago ñom ñoo fi taxaw témoigner li ñuy témoigner ci yow mais yalla def na fekku fi sante yalla ni ma ko waxee ndax sama jëm gi ma fi taxawal nek na itam lo xame ne wax deug yàlla fan yépp dama tedd feebar mais mo won ñak ñëw ci bëss bi ndax Lamine Diouf su amé benn nijaay ci Italie man la man ma fi nijaayam duma guddal wax ji lima ma bëgg wax rek moy li ñépp ànd wax dañuy

conseil bi ma lay jox parce que su ma fi nekkee bugg a wax ñoo bokk a Treviso du tey su ma buggee taxaw wax ci moom tey jii du nu fi jóge conseil bi ma lay jox mooy oyof googu nga oyof baax googu nga baax bu ko bàyyi. amuñu lu lay jox nag loo xamee ne lu extraordinaire la lu la jaaxal waaye ñaan lañu am ñu ngi lay ñaanal yàlla dénk nañ la yàlla foo munti dem. يالنا لا يالنا سام سام سانجابوت سام نيب يالنا باركل والسلام عليكم ورحمه الله بنان سان لوزيان ني لا سان لوزيان تاخاو داجك ندار ندار غيسو واجي كاي باغي خامت اي بوي لا نيون تي سان لوي كو لا دا كون فوكو خامت ها كون انا ما نلاي نوي دل جار

Eh, li nga wax nak ci wax Lamine Diouf da na ma yomb lol lol lol lool ndax Lamine Diouf du consulat mo ñu bolé Lamine depuis 2008 ba léegi ñi ngi ànd mos ñu teqalikoo peut-être bu teqalikoo amé dina ci jaar tout ndax bi moy sama deuxième teqalikoo ak Lamine Diouf té muy teqalikoo yu way euh taxul ba tay teqalikoo bi tamit day continuer machallah té te dana gëna a neex. jamais 203. wallahi azim da ngeen daje waaw. léegi nag euh, pour commencer rek. Lamine ba ñu xamante 2008. ñu ñëw ba 2013 président Macky Sall teq li ñu yóbbu ko conseil économique et social man mu indi ma ci consulat bi ba ñu demee ba ci biir ñu ñëwaat mu fekkante waat ci consulat bi bii ñu ngi nii nag tey la ñu teqali ko waat mu delluwaat Sénégal ma toogaat fii si Italie si consulat bi loolu yàllaa ko def te may ñaan yàlla demam bi nekk dem bu dem bu rafet na sax ba pare rafet na wax dëgg yàlla ndax euh, gis nga seede yi gis nga lu fi nekk si mbooloo mm-hmm. li mosul am ci benn consul bi fi nekk mm-hmm. c'est la première fois muy doog a am donc lii bu amee rek mm-hmm. xel dal na ndax am na lu mu fi wane am na lu mu fi joxe ba xel bi ñëpp mën a am cawarte pour ñëw ndax ku nekk danga nga bàyyi yitte ñëw fekk si Lamine Diouf mm-hmm. mais ku fekkoon ni keneen la yitte yëpp du ko du ko du ko ci am mm-hmm. donc dañ koy sante yàlla bu baax te ne lemin a nekk ku woyof ku sedd ku bëgg li muy def gëm li muy def comprends boo gisee xar kanamu consulat bi tey ak ba yow yàgg nga fi xam nga consulat bu njëkk na mu meloon ah, ak li fi amoon waaye gannaaw yàlla wallaahi gannaaw yàlla wallaahi gannaaw yàlla tey fekk mu toog wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi amul rendez-vous amul dara saa bu nga gis gis ko wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi donc xam nga ni boo boo ma laajee yaa ma gën a xam li fi nekk xëy nga laaj nga ma rek pour ma joxe sama participation ci wax ji waaye kenn gënul xam li fi am ndax li fi amoon mhm. won dina répp rafet na donc lii rek wane na ko waaw ne daal ah tungu ni teew ñii ne daal waa ji ngeen di gis gis ngeen lii mu yor hmm? kii ne ca consulat ba xam lan mooy consulat bi di ànd ak Lamine di ko dawalal otom Nek tamit di ko xamne ku bax la euh, Ousmane dafa nané sénégalais yépp xam nañ ko ndax mbaxam mom ci liggéey ba ak ndimbal gi muy dimbali sénégalais yi taxaw gum leen di taxaw muy ko xam dafa jappalé Lamine tamit ci liggéeyam bi gën ko ko wayfal ak ñeneen ñi and ak mom ñëpp Ousmane di la nuyu di la ziar di la laaj lenn dong bu ma la won kuy Lamine Diouf lo may wax ci Lamine. Euh, alaykum seigne Khadim alaykum wa keur Ndama ndanan TV Ndanane TV nga ak Khadim Gueye TV ñoo fusionné wu yàlla julli seen bi sallallahu alayhi wa sallam ah, di kontaan bu baax ci li nga xam ne nii tey moo ñu fi boole muy sargal son excellence Mamadou Lamine Diouf consul général sortant eh, pour wax ci Lamine nag dina doon loo xam ne nii dinañu tiis lool parce que biñ ko xamee léegi yàgg na yaakaar naa 2008 ngay ànd ak nit ki ba tey lu mel ni am kon kooku wax ci moom day jafe lool Euh, di wax ne Lamine ñi ngi koy ñaanal yàlla fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee ci barke Seydina Muhammad sallallahu ndax euh, taxawu na sénégalais comité sénégalais yi nekk fii taxawu na leen taxaw boo xam ne nii c'est incroyable ñëpp ñu ngi koy jooy ci demam bi nga xam ne ni tey moom moo waral tey ñu ñëw fii ci sargal bi buñ sañoon dañ dafiy des mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam comme yàlla nii koy ñaanal fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee di ñaan yàlla ki nga xam ne nii tamit moom moo fi nar a wuutu ci li nga xamné ne ci Lamine loolu la nekkon doon liggéey pour la communauté sénégalaise mm-hmm. ci taxawayam ak ci jëfam nak ci leppam ci mm-hmm. di ñew yalla def lu raw ndortu ci li nga xamné ni Lamine loolu la fi jotta liggéey mm-hmm. ah, Lamine taxawuna na malade yi taxawna na handicapé nga xamné ni mënu ñoo déplacer wu ñuy def mission di leen fekk ci ñu nekk man dama daan dem mission ñu yobbu valise diplomate ñu déposer leen fi ñu leen mënut fekk muy mu ci fièvre hôpital nekk hôpital wala mu nekk ci kërëm Euh, dañ leen naan fekk ba fi mu nekk lépp ci coobaram ci coobaram la loolu dafa jar dafa jar a saluer yëpp dégg ko sénégalais yëpp xam ko euh, mu doon koo xam ne nii tamit mu ngi taxaw association yi mi ngi taxaw euh, les les daayira ak yeneen kër yi nga xam ne nii ñu ngi fii di fi présenté sénégalais yi ñëpp sénégalais yëpp li ñu ko wax ci Lamine Diouf ñun amul leneen loo xam ne nii dañ ko ciy wax mënuñoo wax mënuñoo wax suñu xool dafa fees suñu xool tooy Ousmane Diongane maa ngi lay sant di la gërëm vraiment comprendre naa émotion bi aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi mosu ci sheytaan di laaj ci ginnaaw suñu borom di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbooloo mi di jël nuyoo bi nag di ko teg ki loxo son excellence le consul général mu jàlleel ma ko ci mbooloo mi yëpp ak kilifa diine yeeg kilifa yi fi yëpp son excellence nag bu ñuy wax ci moom mënut a gàtt sama frère boobu da nga ne ñu gàttal mais kii bu wootee du mën a gàtt il faut ñu xaabaabal tuuti rek parce que tey bés bii man mii dama ko waroon def te nii ma ko waroon defee la ko ñeneen bëggoon defee moo tax mu boole ñu tey ndax le 5 octobre laa ko waroon sargal sargal bu toll nii ndax dafa jaar ak ñun fu rëy bi may door di def guddi qui sama sponsorisé indil ma Canal Plus muy lu reuy dama bëgg ngeen ma excellence munu ma wax munu ma wax liko waral euh, li duf ci nak bi xajul ci cin li son excellence lu ñu xewle mo fay jitu di ñu que xam ay que lañu ndax ci Italie ñu di ci dox diko dox ci bi diaspora bi waye mu gëm ñu bi parti politique amul euh, association ñëpp la jël boot leen rogganti leen kon tey loolu mënul ñàkk son excellence danga liggéey lu rëy tey pétition la ñu woon def Italie yow waroo dem wax naa la ko keroog sa bureau yow da waroon toogaat waaye nag liñ ñaan yoon bi gàtt na waaye liggéey bi rëy na gàcce ngaalaama bëgg nañu yàlla yàlla leeral sa yoon yàlla teg la ci yoonu sàtt musaxim yàlla yiir la sàmm sa njaboot sàmm moo leen ko lu jël waaye anaa li moom dañ fi des kontaan nañu liggéey bi rëy na li nga def yëpp boo fi nekkee di ko wax day day bëri dama koy dëxëñ ndax social yi nga def te bëggoo ko wax bari na dem nga ba Torino ci handicap yeeg ñoom seen dem di yóbbu sa machine yooyu rëy na ñi fi feebar nga jël leen fayal leen lépp yëg nañ ko doon donte waxuñu ko ci kaw waaye yow doo ko sax wax te bëggoo ko ko tudd kon loolu tey dañ la koy wax waaye nag ñi bëgg wax dañoo bari dama koy gàttal waaye macha allah dégg nañu les jàmbaar kontaan na ci yow amul lu ñu lay wax dëgg fa neex yàlla rawatina nag yaa ngi fa ndax da koo gëm allah. jàmbaar ko def muy heure boo xam ñoo la ko jox ndax yow amuñu lu def ndax la cinq la ñuy dolli waat moom it noonu ay jàmbaar kat yi la mais suñu kanam muy kanam sama sama père sama grand avion moom ma njëkk a encouragé ci wàllu danse mhm. doon nag nitu ballaako mhm. loo xam suñu borom rek moo xam dëgg la ak képp ku la amin ñu bokk ko ñu ñëpp yow booy bu baax nga yaa ngi yaa ngi nag liggéey liggéey bu am solo fii yi nga ma wax léegi yu am solo la continuer def promotion musique sénégalaise culture Sénégal maa ngi war a jouer sax la le 27 septembre bi en masse ah na ko ñëpp jëpp préparé waaw tout <laughs> Jackson tout Jackson tout Jackson fii ci biir Genève soirée bi nag waa ANMAS ñoo ko réclamé mu nekk soirée sénégalaise boo xam ne le 27 septembre lay doon fële ci 224 spécial soirée sénégalaise la boo xam ne mais soirée africaine la moom. ndax Congolais yi Zaïrois yi Marocains yi Algériens yi Maliens yi ñëpp ñoo bëgg soirée sénégalaise boo xam ne Sénégal ñooy dajaloo ceeb bu doon yëg baara bi ma nga fa waaye nag en lay doon ah groupe tuy Jackson mooy taxaw bu tëgg en live génn morceau yi bu ndee ba ci biir nag ceeb bu jën yëg mbay bi ñëw. may woon nag sénégalais yëpp ndax nam nañu dina fekk nag gàmm ba pare ndax màggal nañ ba pare dina fekk ñu gàmm ba pare ma jël bis bi nag daal di koy jagleel xale yi jigéenu Sénégal yëpp nag